xam naa fas yéene indiwaat ay leeral yoo xam ne ab silsila lay doon xam naa xalqa bu njëkk bi nag tey laa ko bëgg a tàmbali am na fu may waaj dem sax waaye bu ma ñëwee dinaa ko dinaa ko wéyal waaye xalqa bu njëkk bi tey dinaa ko def muy ñaari ndéggat yoo xam ne mu warke moo ko def xam naa bëgg na tontuwaale li ma doon wax ci waxtaan bi doonte euh, wane wut ne loolu ko tax a jóg dëgg-dëgg waaye ko xam li muy def da xam ne moom day jéem a tontu tudd na yu bëree bëri nag moo tax silsila bi moom dana gudd ndax tont bi man bu ma koy déglu sax damay rus ndax man wax yi amut yii defoon naa ne ci tasawuf rek la koy def waaye xamoo woon ne noonu lu umpalee al aqidatul yi boo ko dégloo rek xam ne li daloon safarul xawaali muy docteur bi newoon arab saudi te njëkkoon di radd ashari yi moo ko dal mooy song pas-pas boo xam ne danga ko koo jàngut ba wala nga jàngi ko ci ay wahabiya ba nag bëgg caa wax foo ko fekk ne wax yi du dëgg day bari njaaxum ya muy wax day bari sos yem cay sos day bari waaye dellu yi muy indi di leen tuumaal tamit day bari te silsila bi bu ngeen ko toppee da ngeen xam li tax may wax lii lim ci wax ci ñaari audio ñaari audio képp lañ ma yónnee waaye waxuma la dara waaye wax yu dëgg yi rek moo koy noté dama mujj sonn maa ni jëmee noté gi rek te dinaa ko topp benn par benn aqida al aqida ashari moom ko xam naa jàngu ko mbaa mbaay wahabi ko jàngal ndax xamu ko loolu la joxoon naa ci tasawuf dong la koy def waaye ndekete lu muy wax lépp noonu la mel ndekete Euh, xam naa tey dañuy tànn benn point wala ñaar ci li wax benn bi li wax ci li dugg ci ilmul ak euh, li wax ci ibaana danañ dugg ci ibaana bu fekkee guddul lool ñu dolli ci mbirum ilmul kalaam bu fekkee gudd lool ñu ñëw ci mbirum li mu doon jéem a teqalee wane ne yëdu ak yeneen yi ñooyam ak sama bu fekkee du gudd lool waaye ci ibaana li njëkk a waaye bala maa ñëw ci point bi nga xam ne moom moo tax a jóg tey ma leeral xoromu waa ji waa léeg-léeg day day tudd ay téere yu yoo xam ne day dajje am ngërëm mën a mën a téere bu rafet la par exemple lu mel ni tabiiru tadbir muftari wala lu mel ni al i'tiqaad bu al imaamul bayhaqi al imaam al itiqad boobu nga xam ne bayhaqi ginnaaw bu mu al asma al asma wa sifat la ko doon talif kay dégg mën a boo demee ci bayhaqi téere bu rafet la te yi muy yi muy bañ boo demee ci téere boobu fekk ko jë maanaam téere buy daaj am ngërëm la am ngërëm la ci misaal rek dama dina ngir bañ a guddal damay jël benn texte rek ci al i'tiqaad boobu boo demee bay bay xaqi ne ne wa fil jumlati yajibu an yu'lama anna istiwaa allahi subhanahu wa taala laysa bi istiwaa i'tidaalin an i'wijaaj buñ ne istiwaa xam leen ne jubluwuñ ci koo xam ne dafa dëngoon ba nga mu yamoo ولا استقرار في مكان دولو جي الله مهندا دا استقرار في بيرب كوم نيكو وهابي واخي وهابي دون دني استقرار الاستواء دو تيك باي حقي نينا دو لول كي تير بو موكي بي تود نان يالا نتي بيرب نيينا استقرار دا نك نيو بوك لو نيو وهابي بري ما سي من فتاوى بو فيمين نينا وفي حديث الجاريه من صفات الله اثبات المكان لله بيهقي المهم لم أخمي بلا أين وأن إديانه وليس بإديان من مكان إلى مكان بنا يالا نيونا هو جبلو تي دا جيغي برب دم سي برب وأن مجيئه ليس بحركة bu ñuy bu ñuy wax ñëw yàlla jubluñ ci ne day yëngatu jóge fenn ndax moom loolu moom jomb na ci yàlla wa anna nuzulahu laysa bi naqlatin bu ñëw wàcc yàlla itam jubluñ ci nag lu taxoo ci béréb di dem ci beneen béréb da bay xam ne moom lii yëpp da koy dàqal yàlla yooyu muy wax yi muy yi mu wax muy bañ naa ay gis moom yooyu boo demee ci téere boobu nee na wa anna nafsahu laysa bi jismin yàlla du aw yaram wa anna yadahu laysat bi jaarihatin bu ne yadullaahi du ab cër wa anna aynahu laysat bi xalaqatin mu ne buñ ne aynullaahi itam jublu ci cër bi kon te mën nga koo topp di ko topp di ci daj ji ale afraad mu naa ko daj waaye moom lay mel ni naa téere bu rafet la mel ni daa mel ni téere boobu day jàngale bu xabi ci xeeti lëntal muy def rek laay ma tax a jóg dëgg dëgg dëgg tudd na itam day wane ne ibnu baris daa saxal ne ibaana ashar yi moo ko te moom la mujj taalif mais ibnu baris ci même téere boobu muy wax sax saxal na ci ne ashar yi di ko ñetti étape maanaa daa jóge ci itisaal dem ci sunna c'est-à-dire man tappale yi gars yi tappale moom a gën a loolu naa ñëwaat bala balaa gën a gudd ndax jox wax daa gudd waaye ma ñëw ci ñetteelu téere bi muy tabyiinu kaadibil muftari ibnu asakir nga xam ne boo ca demee lu dig wahaabi daanaka yàlla nekkul ci bërëb ak yàlla du ci rek yi nga xam ne moo ñu jafe moo ñu moo ñu jaxase wahaabi yëpp boo demee da ngay fekk téere boobu di laaj lool nga xam ne tabyiinu muftari bu ma ci mën mën na maa daj dig wahaabi moo lay xamal ne gaa ñi dañoo mën a lëntal te mën a tappale dañ lay tuddal téere bu rëy te téere boo fa demee ñoom day fekk da ngay fekk mu daaj mu daaj seen pas bu ne benn abu waroon na ko ñëwee tudd ba mu def mu def tëb tëb yu nu kër yi muftar yi moom donte nag du wax du leer xam nga mu war nag moom bokk na ci ni muy def mooy danaan boo demee téere sàngam nangam nangam waaye du sa wax ju leer ala kulli xaalin waa ji fi ma wuteeg moom ci ibaada da caa ñëwul te naa ko leeral ci kanam ah, beneen bi itam nga xool xeeti téere yi ñu tudd mooy li waroon wax démb ci ci waxtaan wi ne gaa yi téere bi daay dañ lay yebal bu lay jéem a seen pas-pas boole na ci dégg mu tudd at tawxiidu lim ni man da lim ni man da abu naim nee na bokkoon na ci ñi nga xam dañuy jël dañuy sosal ay nit dal maanaam di leen waxal ne lee lañ fas te fekk fasuñu loolu di ko toxal na diw lii la fasoon fekk fasul loolu Abu Nuaym borom xel ya neen loolu la daa def nee na itam daa naagoon ci ci njëlbeenu dundam tayib waxaab dañ ma wax ne Ibnu Manda ak Abu Nuaym dañu jubawutoon moo tax moo tax muy wax ci moom lool tayib nañ dem ci kon euh, dahab bi kon dahab moom xanaa kenn du yoonub ibnu mandal xëy na kutubu taraaju mën nañoo wax ni ñoo xam ne dañoo am ak noonu la kenn kay seere ca ka ca des euh, diis ko nangu diis ko nangu tayit danaa leen nangul loolu waaye ibnu mandal ku mënoon a juum la daan jaxase ay bir waaye def ci ibnu asakir nee na ànd waaye nag benn ci benn asar bu mu doon mais li ci njuumte Ibnu Manda la bokk waaye maarifatu saxaabati bi def na fa ay awhaam yu bari bari bari war tax Ibnu Asakir ne fa inna lahu fi ma'rifati saxaabati awhaman kasira ko xamne nak lamuy la doxal ci nit lam say juum day bari kooka buñ leen buñ len nangalon ni lebu Abu Naim wax wax du deug itam wala bok wax ma wax ko waxin wu ma ngi jégalu ci ko waxin lebu Abu Naim wax demewul nona dese yenen bir الذهبي تي مام ساخال ناني داي داي نيت لي يورود مام ام مند نانا بو فكه دا فا جيلي دا فا نيت لي اب حديث جيلي كو سي كورود مام بو فكه دا فا ووتال دا فا واخال بوبام لو خاني موكو واخال بوبام دا داي يينغ مام ام مند ان حرفا داي جاخاسي ايتام نانا بو اذا بوب بوب او تكلم من عنده انحرف وحرف الشك ذهب جوم سخل من بوك نا سي نيغا خامني دا ني نيت لاي حديث يي ويرو اك يو خاني سخ دنج كو سوس تا بوالي بن كو ليرال بن كو نيت لي يروي عن الاحاديث الساقطه والموضوع والموضوعه ولا احتكالها بوالي جو نعيم سخ مومي تام كون غاني خيتي ني ملني سي لي ني دلو tu daat na tamit euh, kanaat kan lay tuddaat ak tuddaat na tamit Ibaari Ibnu Batta alimaam Ibnu Batta nga xam ne Ibnu Batta lu gën a tuuti ci liñ ci mën a wax moom mooy ku doyadi la koo xam ne la muy nekk li mu ni su ko nangu loolu moom mooy mooy gën a tuuti ci liñ mën a wax Ibnu man Batta moom te na ko yokk tamit ne da sos ay hadis ndax koo xam ne da nga daan xoos fekk loo xam ne kay ne kii nga daan di xoos féetali ko feneen fu mu jëmut foofu wadaul xadis am nañu ko tuumaal ne day da daan sos ay xadis moom di ko tuumaal ay nit di ko di ko di tuumaal naa naa ko fekk ko ko moom ibnu Batta dong mën naa ci mën mën naa ci def li ko borom xam yàgg kenn xamul nu mu toll sa yaram day daw lii nu ko nit ñemee moom ibnu Batta kon ñii ñooy delloo ay gars yi loolu loolu lu ma a xam la tuddaat na tamit kitaabu daara mi boobu itam du téere bu wér ndax ñi ko nekk li ay majaahil lañ te kenn xam ko ci jamono salaf saalih dañoo toog ba am ay siècle yu bari ay juróomi ci ci la boo xam ne ay pas-pas yi biddaa ci nekk yu garaaw garaaw yoo xam ne dafa wóote pas-pas salaf saalih ah tuddaat na ibaada ibaada naa ci ñëwaat ci kanam mooy doon mawdoo tay kon gaa ñi li tax ñu réer moo ci ba leeral na ko fii mooy téere yi dellu téere yu wérut ak téere yoo xam ne bu wéree itam du du du delluwaay yu mat a teelul du du sax ay delluwaay ànd ak ne ñooñu muy tudd duñu asalafu ay ibnu Battal dem tudd ibnu Abil Aziz al-Hanafi yaa rek <laughs> koo xam ne waxuma la dara waaye ngir ñi mbokkal am ngiram ñoo ko njëkk a dal moom <laughs> ñi nga xam ne ñoom yi tuddoo ne ne ñoom la bokkalum ngir ñoo ñaa dal ci kaw. kon gaa yi nga xam ne ahlu sunna dañ leen doon dal ak di leen sikkal ñooñu ay delloo ay gaa yi ay ibn abil aiz alxanafi yi nga xam ne mi ngi faatu defe naa mi ngi faatu ay trois ay ay koré sept cent quatre-vingt-douze te wax na téere yi ñu taalif ci asalaf di di ko limaale te safa taxaawi boobu daanaka rab na ci yaakaar naa xaalis rab rab na ko ci boobu mot mot bay dell dellu xam naa naa ci ñëwaat kon lii téere gaa yi maanaam gaa yi bi daay yi nga xam ne ahlu sunna dañ daan wuteeg ñoom ak di weddi ak di leeral seeni lënt ñooñu la gaa yi dellu bokk na ci itam te foofu sax mën nañ faa jaare dugg ci point bi nga xam ne ci laay wax tey mooy wax ji wax ne gi muy lim ay borom xam yu bëree bëri ay dahabe ay saaboneeg ay ibnu asakir ak ay nangam naa ashari moo taalif ibaana parce que keneen taalif na ko keneen taalif na ko ibnu taymiya nag ay boo xam ni ci ibnu taymiya la ko jële waaye seen bopp sax ibnu tabiinu kadibul muftari boo demee ibnu asakir indi na fa boo demee ci dahabi wax na ko di lim ay borom xam kenn ku nekk mu naa nee ashari moo tax ibaana tayib man de musuma wuteeg yow ci ashar yi moo tax ibaana bu fekkee déglu nga ma bu baax du ca télé ba du ci bi ma njëkkoon a def fii man samay wax moom mooy ashar yi moo tax ibaana bu fekkee déglu nga ko bu baax li may défendre kay mooy ibaana ay preuve da caa niwut yi wane daa daa ne ci li ngeen ne te te neexoon na loolu Mor Kébé dugg ci boobu tem dugg ci niqaas ibaana ba xam ndax ibaana luy wane ne acha abul hasan daa génn ci mbir ma da caa nekkam nit xam nga diwatal ibaana ak ibaana bokk na ci lii wane ne daa deltu ginnaaw ñaari mbir yooyu duñ benn déglul ma ñamal la tuuti ci mbirum ibaana li ci borom xam yi wax demal ci ibnu ibnu xajar al asqalaani ci lisaanul mizaan nee na وقول ابن النديم أنه من الحشوية يريد من يكون من يكون على طريق السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات ويقال لهم المفوضة وعلى طريقته مشى الأشعري في كتب الإبانة ابن النديم xamee ni ابن nadayn dafa wax ne ibnu nadim ibnu xajar daa leeral foofu dane li mu bëgg wax mooy ibnu kullab daa topp yoon wa nga xam ne asalafu saalex ca lañ jaaroon te loolu sax dèjà yow loolu ibnu xajar wax day dajji li ngay wax ndax li nga bëgg a ñi mooy ashar yi daa jóge ci yoonu ibnu kullab door a ñëw ci sunna te ibnu xajar moom fii mi ngi saxal ne ibnu kullab ci yoonu asalafu saalex la newoon euh, waaye ibnu xajar dajjiwaat li nga bëgg wax tamit ndax nee na wa ala tariqatihi masal ashariyu fi katb al ibaana ci yoonu ci yoonu ibnu kullaab ci la ashari taalif ibaana te yow da ngaa bëggoon wax ne ashari bi mu génnee ci ibnu kullaab la door a taalif ibaana ibnu xajar moom saxal na fii ne ci yoonu ibnu kullaab ci la ashari taalif ibaana kon ibaana bu wér ba nga xam ne moom la ashari taalifoon tafwiid moo ci newoon te loolu la ibnu xajar wax fii yuridu man yakuna min al mufawwida te ci weeru tafwid woowu ci la ashari yi teel ibaana tayit ibaana moom yoonu ibnu kullaab ñoo ñoo déggoo loolu ibnu xajar al asqalani moo ko saxal ci fan ci lisaanul mizan defe naa ginnaaw yow nee nga jàng hadis yi da nga war a xam boobu téere ndax moom ilmul jarh wa taadil moom ku ca xam dara rek xam nga boobu téere bu ci aalusi ci ruuxul maani آه، دفا واخني الدليل السمعي القاطع في ذلك اجماع الصحابه رضي الله عنهم فانهم درجوا على في التعرض لمعاني المتشابهات نانا دليل بهن من نجو سوك ديكو توالو تفويض موي آه، دبو غا الصحابة صحابه دبو نانكو سي ما راي متشابهات دي دون سي دغ متشابهات يد الله وجه الله ييب كي لا وقد اختاره أيضا الإمام الأشعري الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين وفي كتاب الإبانة يقول وو موي عدم التعرض لنصوص لمعاني المتشابهات مانام آه، صفات yi متشابهات yi nga قبل dafa lënt آلو bañ a dugg ci maanaaya aalosi nee na mooy wi yoon wi tànn yoon wi aalosi wi bi waa ji doon tudd ci léegi at bi muy taalif ibaana kon ibaana da caa tax wér ibaana bu wér bi borom xam yi ko gisoon yëpp wax nañ ne asaar yi da caa da caa da caa da da caa da caa demaat ak Aalusi ci beneen béréb ci tafsiram bi mu ne salaful muslimina wa wa wa diini فإنهم أقروا ما ورد على ما ورد وأثبتوا له تعالى ما وأثبتوا وأثبتوا لله تعالى ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تصرف فيه بكتابة أو مجاز وقالوا لسنا آه، أغير على الله من رسوله لكنهم نزهوا مولاهم من مشابهة المحدثات summa fawwadu ilayhi subhanahu taayina ma araadahu kon aalu fi saxal ne fii ne ngirum asrafu saalih mooy tafu yëpp li yàlla na mu ci yooyu dañ ko doon delloo suñu borom subhanahu wa taala waaye déewuñu ko jéem a am na loxo te yow loxo bi da ngay wax ne alal xaqiqati loolu doonutoon ngirum asrafu saalih ku ci saxal yëdu waxoo ne xam nga maanaam yi comme ni ko waxaabi yi waxe waxaabi yi dañoo wax gu leer na maanaam xam ñooñu taxawut lañ doon def te loolu mun ñu laa génn benn salafi kenn ci loolu dama ciy dëkk mu war këbe dëkk la atahadda nga indil ma benn salafi boo xam ne nee na usbatu lillahi yadan ala ala xaqiqati al lugawiya wala ala al xaqiqati mënta génn kenn nit ku ko mos a wax ñooñu ku ci wax yi du doo wax ne xam nga maanaam wala nga wacc nga ne xam naa maanaam wala sàq xam naa maanaam mënu ko génn waaye li ci alu si teg ci tomb bi ma toll mooy والأشعري إمام أهل السنة ذهب في النهاية إلى ما ذهبوا إليه وعول في الإبانة على ما عولوا إليه أشعري من خمنة موين جروم موين إمام أهل السنة لو لم يكن نقريكم يا موام نانا تفهمي تلول مجو ديالو موين تفوين مانا سخال سخال لو ملايب تهوغي لبوالي ديالو مانا مصر wahabi yi nag loolu du seenu ngir ñoom seenu ngir mooy xam maanaa wajhu xam maanaa yëdu xam maanaa saaq ñii nag duñ ko xam dañ dañu ne wax ne lillaahi wajhun wa lillaahi yëdun xam maanaa bi dañ koy delloo suñu te lii ba may waxee yow almadhabul ashari yi dàq ko nangu na ko moom la wax fawwat ak taful kon wahabi yi dafa bokk ci fi ko yàlla may fekk wax joo xam ne day duróog la muy wax te bokkuñu mu mu mu daal di raaxaloo ci biir gaa yi diw saxal na wajhu may saxal naa kon noo bokk ngir te fekk yow li muy wax yow li ngay wax yow bokkul defe naa kitaabu daara bi bu fekkee fàtte woon naa ko moom itam ab téere la bu mu tudd boo xam ne da koy tegtaloo naa boo demee ma ngay wax nangam te téere jëmi téere bi ñoom wirul ne kooku ko taalif mu ñaar téere moo xam naqdu raddu al jahmiya lay wax wala naqdu naqdu daara mi al mirisi bu ci mën a doon téere yi dañ ko solo ci ay sanad boo xam ne ay majaahil di caane ku ci mel ni Muhammad ibnu Ahmad ibnu al Fadl ak Abu Ruux al Azadi ak Muhammad ibnu Ishaq al Qurashi ak Muhammad ibnu Ishaq al Sarrab ak ñeneen ñiñ ne ñoo ko nett li ne daara ñoo ne ci sanad ñoo ñooñu ay majaahil lañ boobu kon boobu ne moo ko taalif te bu wéroon sax salaf saalix xam ko daara mi ay kori deux cent la faatu nan la ñuy doxee ay ay siècle kenn xamut boobu téere ba mu ñu door ko génne ci ginnaaw bi ah, xam nga dégg naa nga naa <coughs> dootu doo wax ibnu Taymiya da ngay wax ibnu Asakir wala nang wala saawune wala nangam mel ni débat bi moom maag yow da doon débat bi moom moo moog ndax ibaana sax na wala saxul bal asaa'ira yi <laughs> kay <laughs> <laughs> man ci ñu nangu ne ibaana sax na laa bokk waaye waaye lan moo ne ci ibaana même bu la ko bàyyee woon ibaana bii fi nekk tey ma la ko bàyyee woon taxul nga dem ndax asaa'ira yi uluwu ga muy wax ak gi ngay wax yow bokkut ñaareel bi itam de yi ngeen di wax itam da koy tawil de moom leeral na leer gun même bi fi nekk tey leeral na leer bam bam leer na ñu ne waxuti ne yàlla saxul saxut yoru ci cër te da ko wax wax bu leer kon buñu leen ko bàyyee woon sax moom euh, du tax ngeen dem waaye nag daa wérul sax moom bi fi tey daa wérul moom <coughs> ibaana moom achar yi moom tawil ko na téere bu ñu wax ibaana waaye borom xam yee ko gis dañoo wax ne daata tax wér yow im tay moom nga ne nga ne da nga koy da nga koy tëb léegi man xaaral moom moo bañ koy tëb man moom gisoon na ibaana moom itam im tay mais boo demee ci ibnu taymiya <coughs> nee na nee uh, na nee na wal maqsuudu anna ibna kullaab imaamul ashari wa ashaabi dañ bëgg a wax mooy ibnu kullaab mooy imaami ashari ak i gaayam waxoon na itam te démb defe naa waxoon naa ko ne al ashari xamut weneen yoon wudut yoonu ibnu kullaab bal sax ibnu taymiya wax na leneen lu garaaw nee na wax nañ ne ashari ci mujjug ak dundam taalif na ab téere ci ilmul kalaam nee na وقد قيل أن الأشعرية مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك صنف في آخر عمره كتابا في تكافؤ الأدلة يعني أدلة علم الكلام كون يين دي ملي سير سير موم دامي مصطفى الله اندال تاي خمنا لي دواي ديفني سي بوغي سيت كانين دي امتي مي ميروم جيرتون تيب دنا مانن كوكو تود رك ندا دامي لي مي واخ لي غاي واخ موم ا آه، تفوت مصوري لي شيخ واه بي غاوجي دون واخ في مقدمه الاضاحه دليل نون نون موم لاني واخ واخو ني تيلي فوت ابانه دي ànd ak ni ibaane bii fi nekk ni tey du bës leen añaane <laughs> buñ ko bàyyi woon nii rek donte xam nañ ne dugal nañ ci lu ci bokkut du añaane ndax boo cee demee da nga fekk ashari naa nuzulan yaliqu billahi min gayri xarakatin wa intiqaalin yooyu ngay te yëpp naa yi bu daay ñoo ko doon wax da ko wax ne nuzulu yàlla xarakaat toxoog yooyu taxut ñuy wax kon na meneen maanaam boo ci demee itam ci baana boobu ngay wax bi nga xam ne moo fi nekk tey da gis mu ne mustawin ala arshihi subhanahu bila kayfin wala istiqraari istiqrar gi ngeen di wax da koy dàq istiwa gi mu wax mu bokkut istiwa istiqrar boo ci demee itam da nga cay fekk mu naa wa annahu taala istawa ala al arsh على الوجه الذي قاله بالمعنى الذي أراده وخذنا دفع نجي كو وخذ وخذ ذلك تبرب إسوا جمي وخ دفع هنا أنا مجا كو دفع يلا وخ أجمع أنا ممكن أم مو خذ نما أنا ميل كم نين كي وخير نيس قار لا ولا جلوس ولا لنا استواء منزها عن المماسة يعني أنا جمي وخ موي استواء لجو خم جلوس يلا مو يلا نتك أرس والاستقرار ولا يلا مو خنا دي دي دي دي تومسي كو أرس كم نين كي وخير ولا ولا مسخفة والتمكني ولا مينك تبرب والحلول ولا مواجهة والانتقال ولم تخدم لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته عرش ينور يالا عرش بوخم صح مو ñako yenu yalla leen yenu wa maqhuruna fi qabdatihi yalla leen not ci ci ngabam wa من وهو فوق العرش وفوق كل شيء من تكاو عرش اك تكاو لب تام الى تخوم الثرى واي رك فوقيه غن لاي wax فوقيه لا تزيره قربا من العرش فوقيه جي ما wax kat bu fook yo wele goo hande ɗo koye ɗon limu jega rasula dirin kama annahu rafiu darajati an isra wa huwa maa dalika qaribun min kulli mawjud ànd ak loolu lépp nag leen lu nekk jege na la kon kii jege gi muy wax ak kawe gi mu wax jublu ci ay jegey espace ak ay yu demee noonu sori na loolu wa huwa aqrabu ila alhabd ila alabdi min ila alabdi min habli alwarid sa bu mu xol nee na yàlla la ko gën a jege kii jege gi muy wax ak yooyu fi ngeen ko jëmale jëmale wu ko foofu niw ci ay masaafa ak ay yu demee noonu kon ibaane bii fi nekk tey buñ leen ko bàyyee woon sax taxut ngeen amulay ànd ak ne ibaane bii fi nekk daa wérul dafa wérul wara boo demee ci muqaddama muqaddamatu idah dalil a cheikh a cheikh wax bi raw ji waxaat وأما ما جاء في الإبانة للإمام الأشعري رحمه الله تعالى فقد علم أهل الاختصاص أن الكتاب قد لعبت به, لقد لعبت به الأيدي كثيرا وأضيف إليه نانا نيغا خامن نيو استسال سي خامن ني تيري ام نون سي دولي لولا داي فار تيري خام خامي تيري بروم خامي ليلي دا نجي فار لي ام تاي am lu ci dugal fekk borom téere bu taalif wu ko noonu waaye naa leen mosal leen ci preuve yi tax borom xam yi wax lool naa ci dinaa ci indi leen ndax noonu bokk na moor te wax di tudd téere rek ci tàngam fekk ko te léegi téere yi mu tudd sax léegi day dajjam yooyu noonu doon fekk lu ne wax danay lire texte yi ñëpp dégg euh, bala maa dugg ci texte yi ma woy ci leen ci yenn yi borom xam yi seere ci borom ibaana boobu defe naa romb naa Alusi romb Ibnu Xajar romb xaw ji ma ñëw ci al-Allaamatul Kawsari moom di borom xam xadis bu mag di ashar yi bu mag boo xam ne kenn gën koo xam ngir mu ne wa nusxatul matbuatu fi lhindi min al ibanati nusxatul musaxafa muxarrafa nee na nusxab ibaana bi nga xam ne fi ne tey ji fan yi moom lañ mool te jële ko in Inde nusxa la boo xam ne gars yi dañ koo taxrif talaacabat biha al aydi ay aydi al aslima ay loxo yu loxo yu bàkkaaru dañ dañ koo foowe boo demee ci muqaddamatu kitaabil isharat isharat al baram ومن ومن العزيز جدا الظفر بأصل صحيح من الإباء من من مؤلفاته على كثرتها البالغة وطبع كتاب الإبارة لم يكن من أصل وثيق نانا أشعري أي تيرين في نامتي نسخة وخانة دا غيتي منام كونفيانس يوم بتوت فيمنا يبانا بي نيو مول جيلي وين كو سي نسخة أصل بوخانة بو وير دغ دغ لا نخ لي ген دي يباتي موي فك am bind seen rek daal di koy móol boo koy móol war ngaa vérifier ba am fi ba am firnde ba wane ni lii wér na ko loolu ashar yi wax tamit moom la ak docteur Abdourahman Badawi wax moom itam nee na waqad laaxada laaxada cheikhu alkawthari bi xaqin ana nusxata almatbuata fi lhindi talaacabat biha al aydi al asima nee na ashar yi nee na kawthari seetlu loolu te li mu wax dëgg la ak ñeneen ñu ñu ñooñu te it imaana képp koo xam ne naafiq ko boo ko dégloo da nga xam ne imaana bi dañ koo taxrif daañu joxe ay misaal te lool boo dem alhamdu sinaan indi nañ ko ci bi mazhabul ashaari eh, indi nañ ci ay misaal yu mel noonu eh, Cheikh Wahab xaw Xawji a xam naa dinaa ko fi mës a jàngat gi waaye yaa ngi ci waane ba léegi bu fekkee déet si waat nañ bu muy damay far firi téere تيرم كومبليمون مو تيرم بيم تودي رسالة بيم تودي نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة هنا إن شيء أدل يبري بري وأن الإبانة بلينكو تحريف ndax ibn asakir moom mu waaji tudd kitab yéenu kadi bi mu fari am na am na am na am na lu ci ibn asakir yéen ci ibaana waaye li ci Ibnu Asakir indi te loola ci ibaada bu wér ba la ko jële dafa wuuteeg lool li gaa yi mu léegi loolu rek daanaka doy na yi wane ne ibaada bi ay tappale la euh, te li ci Ibnu Asakir indi moom leer na euh, dama ci joxe ay misaal boo demee ci ibaada bi nga xam ne moom lañ mool dañuy wax ne wa ankaru an yakuna lahu aynaani maa qawli maa qawli tajri bi ayunina neena gaay gaa yi dañoo weddi ne yàlla da daa yor daa yor aynaaji te yàlla neena ci alxuraan mi tajriba ayuni na boo ci li nga xam ne fi fi tolloog moom ci la Ibnu Asakir indi la fa nekk mooy waan këru an yakuna lahu aynun waaye aynaani mu ñëw boo demee ci beneen mool beneen mool bi xam nañ ko am nañ am na ay mool am na beneen mool bu ñu ko moolaat boo xam ne fa tolloog foofu waan na lahu subhanahu aynayni xoolal laf du yi wuute xanaa du woon benn ibaana xanaa du woon benn ibaana xanaa du woon benn ibaana kon nga dem nga demaat ci fay mu ne bu àndal fa aynan bilaa kayf xal ibnu ibnu ibnu ibnu asakir moom mufrad la ko def foofu kon borom xam yi tëbuñu rek di wax ci seen bànneex ay firnde lañ indi ànd ak ne sax borom xam yu njëkk yi nga xam ne yàgg ay alooseet ibnu xajar ñoom gisoon nañ ko mais ñoom nee nañ tafwid la te yéen tafwid du séerum ngeen ngirum asaari rek de boo demee ci adili yi wane nañ ko taxriib ba tey bokk na ci boo ñu ci ibaan biñ mool da ngay gis ñu naan wa zakara Haaruna ibnu Isxaaq al Hamadaani an abi Nuaym an Souleymane ibnu Isa al Qaari an an Souleymane Athawri qaala qaala li Hammad ibnu abi Salman abi Aba Hanifata al-mushrika anni bari'un minhu da ngay ñu solo ab jële ko ci Hammad ibnu abi Souleymane ñu ne dafa wax ne jot lil Abu Hanifata moom nga xam ne bokkaalekat la ne ko man génn génn naa ci moom ndax day wax ne alxuraan dañ ko bind. biñ mool tam ñëwaat na ca dina dina ko leeral li tax may wax li biñ ñëw biñ biñ mool ñëwaat na ca ni al alkalaamu al gis fi ibn abi layla aba ta huwa qawluhu qur'an makhluq wax ji nga xamne mo kat ibn abi layla do tuublu abu ta moy wax gi abu xanifata waxoon al qur'an dañ ko bind qala fa tabu min huwa taafa bihi fil khalq leen abu abu ta tuub ci tuub tuub tuub wax joju mu wéré ko bindé fi qaala abi qultu lahu kayfa sirta ila hada nee na sama bàyyi nag wax ma ma ma ne ko ma ma ma kii ne doomi doomi doomi Abu Hanifa ne baayam lu tax lu tax noo noo fexe ba ba baag ci loolu nee na Abu Hanifa ne ma xiftu an yaquuma alayya fa ataytuhu taqiya Abu Hanifa ne ma man nga damaa def taqiya mooy wax loo xam ne koy feeñal di ko def rek bokk rek waaye waaye gëmmu woon yooyu yëpp naa ñëwaat ci misaal yi boo xoolee boo ko comparé ak beneen ibaana bi nga xool euh, ñëwaat na ci itam benn sanad boo xam ne dañ ko dañ ko netti ñu ne xammaat ibnu abi suleyman daa wax ne euh, dañoo yable ci abu xanifata waaw dañu ne dafa dafa yable ci abu xanifata ne ko boo demee ne ko génn naa ci moom bu fekkee tuuboo te fekk boobu ibnu abi waqba ma nga ko moom euh, mu ne sa dëkkandoo bi kat wax na ma ne abu xanifata woo ko Abu Hanifa woo na ko ci loolee ñu ko doon tuubloo ginnaaw bu ñu ko tuubloo ba noppi ayib waxaat na itam ibaana boobu it waxaat na ne Abu Yuusuf Abu Yuusuf daa wax ne man kat débat na ma ak Abu te ñaari weer ba mu dellu ginnaaw ci wax ji mu waxoon ne alxuraan dañu ko bind. léegi nañ ko comparé ak beneen ibaana xool bi nga xam ne moo moo gën a wér boo demee ca ibaana ba bu mu nettalee wax ju jëkk ji ba topp xamu lu lu mu ca tege wa xaasha al imaamu al azamu abu xanifata radiallahu anhu min hada al qawli bal huwa zawrun wa baatilun fa inna aba xanifata min afdali ahli sunna abu xanifata jomb na muy wax loolu ñuy wax ne moo ko wax abu xanifata nga xam ne mooy imaam ju màgg ji jomb na muy wax naa alxuraan dañ koy bindal yu mel noonu loolu dañ ko koo sosal ay caaxaan la waaye waxu ko abu xanifata ñu gën ci ahli sunna la bokk tey bi may laaj foofu moom ibaane bi nga xam ne moom la yor di lang-lange ñu bari yokk si ñoom loolee ca nekk ku ko ca def al ashar yi moom li wér moom mooy moom da doon dàqal loolu Abu Hanifa léegi ki fexe ba ba bi nga xas Abu Hanifa dagg wax ji kooku kan la وأنا مش بنبر بيتا بمنت لي أوفر دني وهذا كذب محض على أبي حنيفة رضي الله عنه لي أوفر دوم ولا وهذا مستوحيد يمل نون موتي باري موتي نك لون لين لي لين لي كيف ري وانا نكو تحريف نعم فكون ندقل كيري بو خمني دنج تي دوغل لو خمني غيس نين دوغل نانتي لو خمني بروم كيري بو خكو تا نسخ بو تي ديم فك فو اباني سا دني ويدنت يفي نك تاي لولا كوي كو تخاو دي واخ دي fekk la fa nga nekk teg la war a def te bu fekkonte ne amuñu gisuñu sax ay texte yu wér ci baa ibaana yu yuy weddi loolu daa yéen woon maanaam sax ashar yi doon xas abu xanifa te ba noppi xanafi yi topp ko te fii li gars yi bay wut xel mooy ñeenti ngir yëpp abu xanifa lañ topp daanaka parce que ni ko sukki waxee ci sama tabaqaab shafiiya nee na maaliki yi moom daanaka xamu ko topput moom sukki noonu la koy waxee Saafi'i yi tam nee nañ ñi ci bokk ci Mu'tazila ak musabbihi yi nga xam ne ñooy gaa yi day wahabi yi nekk ci lañ bokk waa kër kii tamit waa ma waaw waa waa Hanafi yi ñoom itam ci ci mbiram lañ nekk ku ci génn rek su kii koy waxee moom mooy nitu bu daanga waaye ñi ci ni ko nitu bu daanga daal ñoom ñu ko Ash'ari lañ wala ñu ñu Maturidi kon Hanabila itam nee na ña ca baax ay Ash'ari lañ kon nan la nan la nan la ashar yi di dale seen imam bu nag ñu ñu toppee ko noonu ndax loolu yenn maana loolu Cheikh Wahab ji xaw ji wax bi muy raddu loolu loo wax ju am am solo misaal yi wane ne dañ koo taxrif tamit euh, boo demee ci mool bi nga xam ne Wahab yi dañ koy faral di yor da gis ñu naa فإن قال قائل ما تقول في الاستواء قيل له نقول إن الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى وفكي نت لا أخلي لين وقت استوى لك وحنك يعني لك كو دم استوى لك عرش كم نمكو خلي بكم الرحمن على عرش استوى waaye dañoo yem foofu wax ji yem foofu wari ma ci beneen mool bi مريم جبنان إيمان دران نقول إن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق به من غير حلول ولا استقرار استواء بو خمني دفا يلي تي موم لاي wax غو خاني موم wacc aras ak istiqrar boobu yooyu wahabi wax moom bokk rek bokk ديف لان مو راه ني رك reg tax ñu dagg loolu ñëwaat na ci itam ne fa kullu dalika yadullu ala annahu taala fi fi samaai mustawin ala arshihi wa samaa bi ijmaai nnaasi laysat al ard fa dalla ala anna allaha taala mutafarridun bi waxdaniyatihi mustawin ala arshihi maanaam boo demee ci bi gaa yi bi gaa yi faral di yor day wax ne loolu lépp day tegtale ne yàlla dafa istiwaa ci aras yàlla mu ngi ci asamaan si def istiwaa ci aras te te asamaan si ñëpp dëppoo loolu ñëpp dëppoo nañ ci yàlla nekkul ci suuf ci asamaan si la ne nangam nangam demal ci beneen ibaara bu nga xool fa tolloog foofu waaye demal ci beneen ibaara bu nga tolloog foofu foofu la ca la la ca nekk mooy fa dalla ala annahu taala mutafarridun bi waxdaaniyatihi mustawin mutafarridun bi waxda bi waxdaaniyatihi mustawin ala arshi istiwaan munazahan an alxuluwi wal ittixaad leen loolu lay tegtale ne yàlla ku wéete ak benn kenn noonu ki la def istiwaa ci arsh waaye istiwaa ci may wax nag munazzahun an xulul xoolal ni gaa yi dagg yi yi yàq liñ bëgg a saxal te xel affaire yi moom fu ñu waxee day leeral ni moom ay wàcc ci ay bërëb ak nekk ci ay bërëb yooyu tax koy wax istiwa gaa yi di dagg loolu lii ne ko nit nan la ko nit mën a gisee ba noppi naa lii wér na انك استوى على سبوك رسي وتك وهابي فنو وتك مي معنى استوى الغزالي ودي من دغن الله هنا اللهم صل على سب المعنى الذي قال اراده او بالمعنى الذي قاله اشعري بسغل الاستواء واحد كاي موي نين كو بغي فيري بك كو ديف يالا موني لولو اشعري داق نكو ابانا ميم ابانا بي بي غاي يور دي وريلو اشعري داق داق نتا يالا Euh, kon Ibaana moom du ab jëmukaay ànd ak ne wéraloon nañ démb sax ne moom asar yi mu deltu ginnaaw te euh, kenn xamu ko ba ba ci jamono yi ñu doon koo xam sax daa mënta ne moom waaye li ngeen bëgg a tegtaloo sax ab dalil da caa néew nu xam naa daa mel gaa yi léegi bàyyi nañ jóge na ci ngirum Ibnu Kullab daa mel boobu moom léegi waxatuñ ko wala daa saxaw na juróom-ñaari melokaan Ibnu Kullab juróom-ñaari melokaan daa mel mu waaj moom xam naa xam nga daa déglu saa wax yi démb jaag yooyu loolu moom daa mel déggatuma déggatuma ko ci waxam ni léegi sax nee nañ lay wax te ñu ci te ñu wax na nee nañ du du indi kenn naan nee nañ ñii nee nañ ñii nee nañ ñii mooy li muy wax tudd ay téere rek na ak naa nee nañ wala boo demee téere sàngam du àggale wax loolu système u tadlis la moom ànd ak ne asaar bu fekkonte ni génn na ci ngirum ahlu sunna bay xaq ñoom waxoon nañ lu leer bay xaq yi ak sukki ak maar ci ak mortala zawil nee na ñoom li tax ñu topp ko mooy dañoo gis ne la saxaaba yi newoon ak asalaf saalih dajaa ne kon moom génn nag génnul sax daanaka moom <laughs> tuxut tuxut tuxut mu am poids lool <laughs> nag génn poids bi di sud ànd ànd ak ne benn preuve buy saxal ne génn mu ni ma ko déggee tey mu wax sax ci ashar yi sax daa a woyof waxee dañaa génn ngir ibnu kulaab la jógee woon fii ndax ibnu kulaab dañ doon la te démb jot a leeral ne ibnu kulaab moom <laughs> la ko asaar yi leet la du bi wax ñoom xam nañ ko <laughs> gars yi léeg-léeg dañuy dem ba ñu def lay rek beneen mbir bi itam mooy ibaana bi ngeen ne moo moom la mujjee taalif foofu fii si nabar Euh, ñun dañ koy nangu rek min baabi taslim wala boog nu sallimuha jaralan waaye waaye sax benn firnde buy wane ne moom la mujj taalif gis gis ko indi bala sax ibnu na mujj dundam taalif na beneen téere ci taka nee na nee na nettali nañ ashar yi taalif na ab téere ci ilmul kalam <laughs> boobu ngeen di wax ne da caa génn ci mujj dundam fi axira umrihi loolu ibnu taymiya ko bind ànd ak ne ñu bari ci mu xaqiqoon yi la ñu lëngal mooy ibaana du mujj du bokk ci mujj taalif am na ñoo xam ne kitaabal lu maax la ñu wax te loolu <laughs> ginnaaw ibaati la ko taalif ragal naa ne moom la Ibnu Taymiya junj foog na naa naa nee nañ taalif na ko ci mujj dundam mën naa moom la bëgg a wax boo demee ci ustaaz Hamuda Hamuda Xaraaba ustaaz la mu la la <laughs> وليس مقدمة كتاب اللماء الأستاذ حمودة وحنقه العلامة الكوثرية تمد بمتعليق الشيخ السيخ الثقيل المتعليق تبين كذب المفتري أك مقدمة بغا خمنا مملة الدكتور فوقية حسين دفتي كتاب الإبانة ويبرك لن يلنج الموي بكو سك دو موي بمجد هاليهم الإبانة waye buñ ko nangoo ni taxul ngeen raw mu buñ ko nangoo ni tam borom xam nga doolu téere bu bu bees bu yàgg la boo xam ne borom xam ne dañ ko gisoon xamoon na ca ne borom ay ibnu xajar te borom xam yi seere nag du ñuy gone ay alo alosi ku xam alosi da nga xam ne du gone euh, waaye li bëgg a jaaxal waa ji daa mel ne xamul sax ñeen ñooy salafu saalih ay ibnu manda lay wax ay nit yi quatrième siècle lay ak ay kii ànd ak ay nit lañ yoo xam ne sax dañuy ulama al jarh wa a bay wut noonu dañoo dañoo wax ci seeni mbir ay mbir xamante fii daa mel li wax mi ngi bëgg a bari mu doon xalqa njëkk bi am na fu ñuy waaje kii sax waaye xam naa danañ dellusiwaat ci silsila bi wax na leen yu bëree bëri yoo xam ne bëgg nañ koo topp waaye sax dafa ruslu da ngay xam ne kii dara ci li muy wax te firnde yu yu bëree bëree koy wane li ci Baaqilaani di jàng na ci asaar rek Baaqilaani saxal na juróom-ñaari melokaan ay ay ay a ay ay kaarisa yoo xam ne kaarisa alimiya yoo xam kenn <laughs> yu yu bëree bëri yoo xam ne xam naa da ngeen ko dégg ci biir rajo bu ngeen ko toppee bii mooy xalaq bu njëkk bi dañ ñëwaat ci ji topp incha allah ku am beneen audio mu wax it nga yónnee ma ko foo ko fekk ndax lii moom day am solo loolu ndax am na lënt yoo xam ne sax man gëjoon na ma dégg ko koy wax moom moo ma ko fàttali te loolu day daal di am solo euh, kon xamut sax fi ñu wóotee ak moom ndax ibaane sax nag saxut moom ci la nekk ibaane taalif na ko ak ibaane bi nga yor moo ko taalif ñaari wax yooyu duñ benn euh, <laughs> <laughs> ibaana bu wér boobu borom xam yi gisoon nañ ko wax nañ ko itam yaakaar naa aloosi moom kenn gën koo xam lan mooy tax wér ibnu rek gën koo xam lan mooy tax te ñoom gis nañ ko ne ne tax ne biñ gis ñoom ci tax wér la ko taalif noonu kon taalif na ibaana wala borom xam sàngam nee na ashar yi taalif na ibaana loolu du débat bi loolu ki koy debal mooy koo xam ne dañuy ibaana ashari talifu ko kooku nga koy debal man boo seetloo li may wax xam nga ne bokkut ak loolu <laughs>